asulaay bi na si daara ji bisimilah rahmaan rahim sant yàlla julli ci sang sangi Seydina Mohamed sant ñaar waaju sant suñ wasila Cheikhul Khadim di leen nuyu baax di leen ziare yéen ñi nga xam ne saa su ne yéen baaxoo toog di seetaan Waarwi bii bokk ci àllu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul yéen a ngi seen émission waajal màggal waajal màggal nag tey dafa dikkaat fii ci jumaay Touba nekk fii diggante ga Sëñ Lahad Mbacke ak jumaay ju tedd ji bërëbu ñaanukaay yàlla bi bërëb bi nga xam ne bërëb la ci bërëb bi tey fii leen taxaw ci buntu ko Cheikh Abdou Lahad Mbacke su suñu waajal màggal ne tey ñu ko séenee ànd ak soxna si nga xam ne kenn la ci ni mu mel ni mu baaxoo ab liggéey muy soxna maam Issa Mbacke ak nu kafe tey moom lañ àndal ci waajal màggal ñu ànd soxna maam Issa ñëw fii nag ziyaare si ak daayira bi ngeen xool soxna maam Issa naka lay waajale màggalam soxna maam Issa li nga xam ne indi na ko ci addee ji muy joxe ci bis bu tedd bii ci bis bu rëy bii ci màggal bu rëy gii 2020 soxna maam Issa lii la jëfati ndax saa su ne su jëfee rek jëf lu rëy ndax soxna maam Isa jëfam toujours day rëy soxna maam Isa ni mu ni mu a lay jëfee macha allah nekk jigéen joo xam ne bu maamam ju baax ja desuwaateen jamono sëñ ma Samba Mbàkke soxna maam Isa du sensé toogin benn yoon ndax toogee na ni mu war a toogee jëfe ni mu war a jëfe ndax foo làmb ci moom si Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul rek ngay gis ndax dafa bëgg maamam ju baax ja Sëriñ Tuubaa tey jii nag ñu ànd ak moom parce que ne woon dugg ci biir kër gi woon ni mu indi ci àddee ak mbokki jullit yi ak mbokki taaliba yi ñuy waajale màggalu Tuubaa بنا نور ونعم ربنا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 alhamdulilahi rabbil alamin salaatu wasalaam ala rasulillah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu baax te di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi ñaanal cheikh mahamadul muntaxa yàlla na ko suñu borom doole yàggal te may ko weer defal ko mboolem njabootu cheikhul xadim gi yëpp di ndokkeel umma bi yëpp ci bis bu tedd bi nga xam ne moom la jublu muy fukki fan ak juróom ci weeru safar di bis bi nga xam ne moom la sëriñ bi demoon liggéey li boroomam te bi ñibbisee nag woote ñu santale ko yàlla eh, cant googu nag ni ko Cheikh Mamadul Muntaxa waxee bala ñuy sant sëriñ bi wala bala ñuy sant yàlla dañuy sant sëriñ bi eh, ndax eh, lépp lu nu am ñun sëriñ bee nu ko may sunu noppee nag boolewaat sunu cant tàbbal ko ci ak cantam mu sant boroomam ndax moom lépp lu jaar ci loxoom jëm ci yonent bi ak sunu borom suñu borom dina ko nangu. kaddu yi nag ñu ngi ko yëkkatee ci turu soxna maam Issa Mbacke ahlu Café Touba bintu sëriñ Modou Fati Xari ibnu Cheikh Mazamba mu toog nii jàkkaarloo ak noonu. ñu nekk fii ci kër Cheikh Abdoul Ahad gi ëf jumaa ji ndax moom màggal gi da cee am ñaari waar yu bokkut mooy warteef bi nga xam ne war na murit bu nekk mu màggal ak warteef bi nga xam ne mbooloo mi ko yàlla booleel te suñ borom ëllëg yowmal xiyaam suy woo mbooloo ci turu ke leen jiitale leen di woo yow ma nadduhu kulu naasin bi imaamihim moo tax taxawaay boobu mu taxaw ci ko ci këram waaye ñëwaatam taxawaay bi mu bokk ak ñëpp mu taxaw ko fii ci kër si Abdoul Ahad bokki taalibe yi nag di ko fi fekk ànd ak moom liggéey bi sëriñ Mahmadan Euh, Fall ak euh, ajaratu soxna Juma di suñu waajur bu baax wii nga xam ne moom fédération ahlu café kenn jiituwu ko ci kenn mënu ko ci ndax ku ne xam ne daayiraam taxawaay bi nga xam ne moom lay taxaw Poroxaan waaye sëñ Dan mii nag dafay doomi xoli soxna si di ab soppeem di léppam ànd ak moom ci liggéeyu Serigne Touba bi lépp loo xam ne soxna si sumb ko ci liggéeyu Serigne bi kenn du ko ci man barki bu ci tabaski yi euh, at mu jot niñ koy baaxoo defee jënd xar mu mucc ayib jox ko soxna si Eh, noonu lañ ko defee waat ci màggalu Touba gi noonu la koy defee Poroxaan noonu la koy defee ci mbalem Touba noonu la koy defee ci mbooleem yëngu yi nga xam ne soxna si daf koy yëngu waaye lii nag moom da cee a rëy ndax ku ne xam ne ne màggal gi maa ngi ko doon wax eh, kera bi ma dalalee ci benn télé ma ne leen lu nekk la ñuy gis ñu di ko wetti ba des kafe waaw lépp la ñuy wetti ci màggal gi lépp ay des waaye kafe moom fii lañ ko tuur doo ko dégg la waral loola nag mooy day tiraangay Serigne Touba ju ko suñ borom fayee ba jógee ci tukki bi kon nag sëriñ Dan bu indee kafe gu toll nii ak suukar ak xataay bi ak màggal geeg ni mu toll ak kenn ku nekk fa nga nekkoon nga mën ko faa def na nga ko far a defee te boo ko fa defee sëñ bi nangu ko waaye mu xam ni soxna si toll ci moom xam li ko soxna si defal xam ni mu àndeek moom tax mu indi café ak suukar jébbal ko soxna si loolu rëy na lool ci soxna si rëy ci mbooleem bokki taalibe yi nga xam ne ñoo ànd moom liggéey bi soxna si nag nee na amul lu dul ñaan mi ngi koy ñaanal ci barkeb sëriñ Touba yal na sëriñ bi dolli ay xéwalam yal na sëriñ bi dolli wéram yal na sëriñ bi àggale yéenam ci liggéeyal sëriñ Touba ndax yéene rafet la tem ànd koog waajuram bu baax wii ànd koog soxna yi and koog mboolem képp koo xam ne mu ngi ànd yow ci liggéey Sëriñ Tuubaa bi sëñ daan soxna si nee xolam seddati na ndax bu nee xolam sedd na day mel ni tey rek la jëf ji am waaye jëf ju am la di amati kon jërëjëf lañ lay wax di ñaan yàlla nañ ko téewee déwén te lépp loo man ren yàlla na suñ borom tëbb kattan ba nga mën lu ko ëpp ci barkeb Sëriñ Tuubaa ni kafe barkeele ba Serigne Touba waxoon ne xaw tur ma mën a dekkal ku dee ñu ngi ñaan yàlla barkeeli noonu say mbir yaa ngi ñu ngi ko àndal ci barkeb Serigne Touba lépp loo xam ne daal màggal gi attan na ko te ñu sëf ko ko bu la ci kenn ëppale ci barkeb Serigne Touba loolu soxna si mi ngi koy ñaan di ñaan la Cheikh Mamadou Mountakha ajaratu jumaa yi tam ñu ngi lay sant di la gërëm di la ziar ndax sëñ dankat su bëggoon a def lu baax te fekku nga koy def tam mën na koo def waaye kon dana jafe waaye nit nag su fekkee ay waajuram ci yoon wi nañu nekk rek noonu lay mën a àndee ñoom kon nag yow itam ñu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ci barkeb Serigne Touba yàlla na nga dem ba fekk njariñu njaboot gépp ci barkeb Xaadim Rasul ñu ngi sant fi teew ñëpp di sant sëñ Daam Kafe mi nga xam ne moo jiite liggéey bi ñu nekk fi ñoom itam di ay ndaw waaye sëriñ bi rek ñor leen ñoom moom saa woo indee kafe seen xol sedd na ndax kafe gi moo leen di bégal kon nag bégal nga waa ahlu kafe yëpp yàlla na yàlla bégal ak Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullah léegi la ma daam naa jënd suukar par suukar ñaari saako ah? la ko yónnee orange money ah. ñu jënd ko ndax dama ko daa waajtaayu màggal Touba 2020 bis bi nga xam ne moom la ko tedd ki ñu santale ko yàlla at mu jot nag ñu la fiy fekk ci sa taxawaay ci ci kër yoonu sëñ Touba moom kenn du ko nattab ñu bëggoon a xam naka sa màggal màggalu Touba 2020 yi incha allah. waaw jërëjëf ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa santaat Serigne Touba mi suñu yaakaar tey ak ëllëg yeesal bu baax sunu njëbbat sama sàmm dama mbégte bu baax ci laaj bi nga ma laaj. muy naka la ñuy waajal màggal gi xanaa ne ko sunu kilifa yu tedd yi daan waajal rek li ñu njëkk def mooy setal Tuuba bam mu set jàng alxuraan karim ak xaside Cheikh Ahmad Bamba def ay salaat ala nabi ay basmala istixfaar lépp loo xam ne ci lu baax danañ ko def yéene yool bi sëriñ bi door a tàmbali nag ci di bernde ndax sëriñ Tuuba dane woon bis bi saa yu ñëwee koo xam ne sama mbég sa mbég la nag moo sant la yàlla bu ko defee nag ñun bernde kon bernde li ci ëpp mooy wàllu kafe gi waaye doonte sax façon bernde bu ne la ñuy def fii ci kër sëñ Abdou Lahad gi waaye nag li waral liggéey bi nag mooy café gi nga xam moom la sëñ Tuubaa jëli woon ci tukkeem bu sell boobu mu indi ñu ko sëri ca ndax jàng xasida ak naan kafe dafa dafa nekk bokk ci mandarga mu yoonu murit moo tax ñun waa ahlu café bépp xew-xew boo xam ne yëg nañ ko ci yoonu murit dinañ fa yóbbu kafe def ko àddi yi sëriñ Tuubaa waaye na rawatina bu bés bu tedd bi ñëwee ci la kuréel yëpp di ñow kuréel yi nekk ci dëkk yeeg nekk bitim réew ak ñi ci biir réew ñëpp danañ fi tase incha allah di tàngal kafe nag kafe ku baree ba danañ ko tàngal li war jumaa ji kër sëriñ bi ak résidence be ak fépp foo xam ne mbooloo nga fa dinañ am commission yoo xam dinañ fa yóbbu kafe boole ko xale yu réer yi nga xam dañuy daj dañ leen dajale fekk ci bunt ko sëñ Fall tamit ñoo leen di yor ñoo leen di jox añ di leen jox reer di leen yóbbul café di leen toggal ay laax ñu koy ndekkee handicapé yi nga xam ne way laago yi ñoo di yorwaan te xamuñu fi kenn tamit ñoo leen yor ñoo leen di toggal ñu xëyee danañ leen jox laax ñu dek jox leen añ ku ci soxla kafe laaj ku bëgg ndox fu ñu fekk la fa nga ne ko yóbbul la ko reer jotee ñu yóbbul leen reer ak keneen ku ci yam rek doxandéem boo xam ne yam na ci te xamoo fi kenn dinañ la jox nga xéewlu loolu mooy sunu liggéey ci màggal gi ñu koy defee fi nag ci kër Cheikh Abdou Lahad Mbacké lu tax kër Cheikh Abdou Lahad kër Cheikh Abdou ko fiy defee dafa gën a yaatu ndax ci résidence bi lañ ko daan defee te résidence bi dem na ba léegi xajatuñ fa ndax bañ ko fay def ba benn daayira la woon léegi dem nañ ba fédération xam nga xajuñu ci biir résidence ak gan ñi bu bu màggal dikkee dañ koy génne jox ko gan moo tax ci lañ sëñ Siidi joxe barab bi ñu nekk fi jox ñu ay dal ci biir pour ku bëgg a dallu fii nag ñu fi nekk di fi tàngal kafe di fi togg di fi jàppale ñi nga xam ñooy doxandeem yi daal loolu moo ñu tax a jog ñi ngi xam ne xamuñu fi kenn ak ñi nga xam ne amuñu fi tal ak way laago yi ak xale yu réere ñooñu daal la nekk fii fas yéene bernde nag leen jox ken lu ci waaye soxla rek ñu defal la ko ab murit Mbàkke nan la war a mel jamono yàqu nit ñi soppeeku taalibe gi naka la murit war a mel. ah ab murit dama xanaa déglu ndigal rek te bàyyi ay tere ndax ab murit moom ab taalibe dafa war ne ab néew bu ñu sang ci kanam sëriñam rek waaw an tekk rek waaw sëriñ bàyyi seet lu lu lu jaadu ca moom rek mu def ko ab murit nag yombut murit yombut waaye nag ñoo ngi ñaan yàlla boole ñu ci murit saadix yi rek. xam naa benn murid saadix de nga ne moom suñ <laughs> dan mi daal ab murid saadix la moom moom mu te kaame mën naa ko waate waaw ndax ni nga gis ak nii moom mel kilifa la bu ñu la waxoon ay garaatam ak famille liggéeyee da nga naan déedéet waaye dafa jël lépp jaay ko jënd ko ak taalib te xam ne ak bi rek moo fi ma may dara fii dara jël fee jaay ak taalib moo tax moom bam dafa teel a xam loolu moom teel a nangoo neex moom dafa teel a xam loolu dem toog fa te loolu nag boo ko defee ñëpp dañ lay respecté da ngay neex ñëpp waaw ndax nit ñi moom fi ne ak taalibe bi moom dafa xew ci la ñuy nawee nit tamit moom nag macha allah nañ ko ñaanal la defal ko cat ndax ka ba ma dalee ànd moom ci li yàggan ba mu ko dalee ca boobu tolluwutoon nii te yaakaar naa dinañ dem ba mi gaar ay kaba yoo fi di ko wàcc waaw na ma ko ñëpp ñaanal rek gudd fan ak wér gu waaye lépp dina ñëw di ñaan sama sox sama goro bu baax benn ah, ak waa jënam bi nga xam soxna jamaa nga xam ni soxna jamaa moom moo ñu fàggul lépp rek waaw ndax ci moom lañ tàmbalee liggéey bi lépp loo xam ne am nañ ko daar doo xudóote ci moom ndax moom mi ba ñuy ànd moom muy jumaa mi boobu ben daayira la ñu woon moo ñi ñaare loon gis nga dem nañ ba génn ci biir réew ba ci bitim réew mu doon international bisu sax mën na ko jigadi wooñu suñu ànd bi jigadi wooñu ndax ba bañ ànd moom rek la ñu yokk kon ñu ngi koy ñaanal yàlla lafal ko cara defal ko mujj ko rafet barke borom Tuuba yow ñaanal suñu site bi barke barke seen site bi di ko ñaanal rek waar bi mu ne bokk ci waar yi gën a mag rek waar seen Tuuba yi gën a mag rek fépp fépp foo xam ni nga fay teg dégg télé yi gën a mag ci àdduna bi rek yàlla nañ ko fa dégg su mbàkke borom te baax baax si son bi